donc lolo aussi nous rafetlu donc euh, de parce que choix je pense c'est un choix qui est ex motivé de aussi responsable parce que c'est vrai que Mbass, baa ngi fii ba mu ngi baax na baax mais des gestes barrières yi ak masques yi des ah, vraiment nous tologum

il yalla def aussi nawet bi sénégalais ndaw ak ñu xam autosuffisance alimentaire il faut effectivement lu dund lu ñu ñu ko réew wala ñu ko donc mo tax ñu ci lu baax également maire de ak responsable politique yi parce que vraiment c'est dans l'unité boo xam ne accueil bi di am ñu ne aussi bu nekkutoon mesure barrière yi xamna fi mom fii moom ah mbat mu tak mais lolu xamna naa kay bay bàyyi benen rek di masawu aussi ñoo xamne peut-être li ñu am fi sin amuñ ko parce que ci biir ndox mi ñu leen masawu bu baax baax ah xam aussi walu bobu amna na jéego am solo bo xamne mom ci bobu def nako dem na ba ay kermassar yu mel nonu te bu mu ñëwee ba légui aussi yaakaar naa ne li doon gis ci inondation c'est vrai que ren mom métti na parce que